yi nag ñoom seen kër ku ni jàmm ak salaam rek xam jàll ci say say nag moom lépp lu Aliou def rek moom moo koy conseiller ba tax na mu conseiller waat ko porter plainte gendarmerie ndax jàpp na ni ko porter plainte police du abouti parce que ki nga xam ni moo di Penda Rousse dafa am na moom mi nga xam ni ndax jàpp na rek trop c'est trop waaye nag li ñu naan rek dooley mbëggeel waaye itam boo ko boo boo ko séq rek nga xam ni dañoo saay saay ndax Penda Wurus da koo rek bëgg a faire euh, da def chantage ci euh, vidéo yi nga xam ni euh, yor na ko ba tax na ko nit lépp loo xam ni yaa ngi ciy nekk war nga see jital xel jiital ci sa sago parce que tey moom mi nga xam ni moo di Alioune Mbaye peut-être su fekkoon ni que àndoon naag sagoom wala àndoon naag xelam bi muy nekk ak ki nga xam ni moo di Penda Wurus te bañoon ko rek fekk lépp loo xam ni bëggoon na ko ni ko tey dina mën a jëflanteeg moom waaye tey jii Penda Wurus da koo ëpp doole parce que ku yor say nudité moom noo def rek da ngay di ànd ci li nga xam ni moom la euh, bëgg ñu jàll si cee cee nag moom euh, euh, nag ku da koy daal di génnee ba noppi nag mu xamal ndee la ni xalaatul di porter plainte ñu jàll na kër cee ngir nag jéggalu jéggalu Wurus parce que Penda Wurus da envoyé ay vidéo te da koo rek menacé que ni vidéo yooyu nag dina ko daal tas fépp ba ñëpp jot si te ku ne xam na ni nag kilifa bu nekk doo bëgg loolu ba tax na nag lépp lu ko Penda Wurus waxloo mu dem wax ko cendeela ngir setal deram ba mu set wecc loolu nag tax euh, nga xam ni moo di Alioune Mbaye nag ci moom waaye nag yaakaar naa du yombee noonu saa su ne euh, te it nag ki koy tëx a euh, parce que nag nit mënoo am ndam saa ci kaw nit ji loolu que euh, ndam yi ngay am yëpp si kaw njuuj ak tappale rek nga ko daal di ñu jeexal ak ulay anta ulay anta nag moom giri-giri bi nga xam ni moom la euh, ceen la def ceen seen lal pour aar aar ko giri-giri la daal gis jàpp ne kon Penda Wurus moo ko fa dugal mu mel ni kon moom ulay anta commencé na am dut ci euh, Penda Wurus rek day tax mu daal di koy bàyyi xel ndax jàpp na lépp loo xam ne am na ci ñu gisul woon gan moom moo ko fa def ba tax na kon mu jàpp ni Penda Wurus moom moo fa def giri-giri boobu te loolu nag mën na indi problème ci kër gi parce que su fekkee ni